di jiital si nuyoo bi ak siyaar bi alxalifatul am li tarixatil murdiya Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi bu baax a baax a baax ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba radiyallahu taala anhu si islam ji waaye rawatina yoonu murit sunu borom defal ko lu kawe njortam te ñu ànd kook moom xam naa ñu bañ a guddal rek comme ni ko neen ko xamee si école muy amal ay ansitam maanaam ay yëngatu yoo xam ne daf koy amal si biir année bi si biir sanna dirasiya bi bu newee nag ba nga xam ne école mu ngi waaj a tëj yooyu yëpp nag ñu doon amal ñu di ko tëj moo waral tey jii ñu war a amal benn la ñu wooye euh, musaabaqa saxaafiya boo xam ne école Kër Maam Xawalo nekk fi si Touba Tëlib Bees di franco arabe moo koy amal musaabax sa musaabax bi nag yaatu woon na lool demoon na ba nekk juróom benn équipe jàpp juróom-ñaar ñuy jongante ci seen biir chaque jeudi bu ne chaque alxames bu nekk dem ba nga xam ne nag ñaar ñi nga xam ne ñoo raw ñoom ñoo war def tey ji final bi kon loolu lañ leen indil leen ko par présenté incha allah neex ba nga mën ba aw fa la bisu tay léttu lees booleeg jamu siin sañse jubbiwul ku la may alquran hadis lañu am waaju am leneen na nga jël alquran dafay ramu jaam kon ëllëg bisam dina ñëw dina ñëw aywa question yu njëkk yi ñu wooye asila jamaa yi lay doon yéen ñett yéenay diisoo ba kenn xam tontu ñu may la benn temps bu jeexee ñu jox ñu si des yenn question yi ñëwaat nag al asilaat al fard ya lay doon kenn ku ne sa question lay doon yow yaay jug tontu ko groupe A ak groupe e. kon bëri woon ay groupe demoon na ba groupe C ay ñoom ñooñu toog nan kon ñi ñoo des tey groupe E ak groupe A kon nabda groupe A aswal yaqul kam marratan waradat kalimatu muhammad salallahu alayhi wa fi l qur'an kalimatu muhammad aw lafsu muhammad baatu muhammad ñaata yoon la ñëw ci alquran suñ fàllu xata amet fall cinq jayid marratin aywa ba antum groupe E السؤال يقول كم مرة وردت كلمة إبراهيم في القرآن الكريم إبراهيم إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ñaata yoon la turam ñoo ci mu ne wulitu man ana wulitu fii Kébémer maa ngi juddoo Kébémer 29 mai 1926 maa ngi juddoo Kébémer 29 mai 1926 te mas na maa nekk président bu senegal man la kan. Abdoulaye Wade. maître Abdoulaye Wade al ijaaba saxiixa day it safixu antum ba tey mu ne wulitu fii Fatick maa ngi juddoo Fatick. 11 décembre 1961 te ba tey man tam mas na maa nekk président bu Sénégal man la kan. aywa. Macky Sall. Macky Sall al ijaaba sahiha antum man huwa raisu baladiyatu Mbakke ma ne déetu yaa xam ne maire maire bu Mbàkke kan moo ko jiite kan mooy mooy seen maire al jumhur publiquement yéen ñi si ngeen bokk de a Galaba mooy maire bu Mbàkke moo nekk fonction publique encore day it xam foon at Mbàkke ndaw moo fi jóge ah yéen ba tey nag boobu moom man huwa raisu baladiyatu Touba maire bu Touba kan la lu mu tudd. Abdoul Ahad Ka. waxal bu baax. al ijaaba saxiixa jayid. mas mu asimatu Ispania Espagne farma capital. Bruxelles Bruxelles ab capital la si si réewu Europe yi ban dëkk la. Pologne. Pologne waaw. Turquie Turquie la ah. Bruxelles Belgique Belgique day it. qui la grande mosquée de Touba. qui a fondé la grande mosquée de Touba. Modou université Cheikh Ahmadou Bamba ban xalifa sëñ Touba moo commencé liggéey bi asos sëñ Abdou Lahad Mbacké en quelle année Serigne Mountakha Mbacké est devenu le xalifa général des Mourides qui est le premier xalifa ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di am mbégte lool ci jotaay bi di féliciter équipe yi fi jaar yépp rawatina nag ñaar ñi nga si ñoo doon def euh, final bi tey ñu diggante A e. di di leen ñaax ngeen gën a gëstu gën a. fonk njàng mi ngeen xam ni école moom dalay jox caabi rek li ci des nag yaa koy mottali sa bopp ngeen góorgóorlu baax te xam ni tim équipe A ak e, e, fu ci gañe rek sa morom moo gañe kon jurul coow jurul jooy jurul def dara E, e am na cent cinq points A am 110 kon E 110 ñoom ñoo jël ci bi